taajoo na ngeen ko gàddoo seen at sànnil ko Zara bi mu ngi wër ci biir Sénégal ci joŋante yi nga xamante ne jëm ci wàllu mairie yi mel ni nag candidat bi di Zahra Iyane Thiam ci Sicap Liberté moom mi ngi wëyal li nga xamante ni mooy visite de proximité yi muy amal la ci àllarba gi nag fi nga xamante ni jëmmal na ko ci visite yi muy def mi ngi koy demee ci li nga xamante ni moom mooy entreprise yu ndaw yu nekk ci biir Liberté dem di safantoog ñoom waxtaan ak ñoom seen bëgg-bëgg ak taxawaay bi nga xamante ne war na ko am bañ ko joxee li nga xamante ne mooy mairie bi seet na ay kilifa yu bari bari bari bëri waaye tamit dem na gis ji ñi nga xamante ni ñoom ñooy communauté Manjak ba nekk ca Liberté 6 extension quartier Barak ngir saafante ak ñoom ak waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg mel nag am na ambiance bu am solo boo xamante ni amoon na fa euh, bi mu fa yegsee cëppaandaw nag ndaw li nga xamante ni moom moo jëloon kàddu mbooleem ñi nga xamante ni ñoo fa nekk yëkkati ay kàddu rafetlu li nga xamante ni Zahra Iyane mi ngi koy def waaye tamit dalal xelam ci li nga xamante ni lañ jëm muy élection yi Zahra Iyane tamit daal di yëkkati ay kàddu jëmle ci li nga xamante ni mooy programme bi bëgg a andi buñ ko joxee maire bi waaye tamit wax na ci li jëm ci wàllu violence bi am ci biir réew mi ak li nga xamante ni loolu la ndaw yi di doxee ak seen ay autorité waaw li ñu mel dafa nekk li nga xamante ne lu yàgg la liggéey bu yàgg Euh, te tamit ñëwam fii euh, ak liñ ko acquérir fii nii dafa doon yi nga xam lu dëgg suñu la parce que euh, ñun ay doom militaire lañ tamit ay jeunes engagés lañ te suñu takkee rek takk nañ ba pare liggéey bi nga xamante ne commencé woon nañ ko ay at ci ginnaaw la woon ba tey ñu ñëw mu ñëw soxla mairie bi kon jar na kon ñu ñëw gën ko dooleel si loolu noonu gën ko wanaat wanaat tamit suñu taxawaay si côté am euh, pour incha allah ñu mun ko dugal si suñu euh, mairie mairie Sicap Liberté. waaw compte yi nga xamante ne moo ñu gën a touché man damay wax ni damay jàpp man sama bos mooy xëyu ndaw yi xëyu ndaw bi nga xamante ne tam euh, suñu président son excellence Macky Sall président de la république taxawal na ko surtout mooy xëyu ndaw yi parce que tamit. Euh, euh, dëkk bi nga xamante ne soixante di pour cent de jeunes la euh, war na tamit war nañ gëstu ndaw yooyu noonu ñu nekk si dëkk bi incha allah si la Senelec su ko yàlla defee su ko yàlla dogalee dinañ dugg incha allah dinañ jël ndam li dugg si mairie yi si Cap Liberté ak suñu candidat madame la ministre Zahra Iyane Thiam. ñu am mbégte lool nag teew fii tey ci camp bi bi nekk Liberté 6 mu nekk camp boo xam ne dañ fi am ay responsable dinamit boo xam ne dañ fi def liggéey bu am solo ba tey ñu ñëw di concrétiser liggéey boobu lii ku fi gis xam ne liggéey benn fan liggéey ñaari fan ndax fii mën naa ne bu fekkee ne euh, temps bi ñoo fi ne bu ma yeboo ne mën nañ am 100 pour cent parce gis nañ ko a génn ñëpp ànd ak ñun ñëpp a adopté euh, programme bi nga xam ne proposé nañ ko population loolu aussi li ko waral mooy suñu programme bi koy tëgg tëjuwuñ ci suñu néeg bind ko dañu wàcc ñaari at a ngi nii ñu ngi dox biir ci caractère bi wax ak population bi wax ak jigéen ñi di wax ak ndaw yi pour proposer leen li nga xam ne loolu la ñu bëgg def bés bu ñu yàlla dimbale woon ñu yor mairie ndax mairie dafa am solo ci taxawaay dafa am euh, question yoo xam ne état su koy saafara yëkkati la mu koy saafare jëmale ko directement ci population danaan dama koy jaarale ci ay lu mel ni commune wala ci ay lu mel ni département kon dafay génne koom bu ne dama koy dugal ci santé bi ci jàng bi ci leneen ak leneen jaarale ko ci ay maire kon booy tànn sa maire danga koy xam kan koy tànn la xam nan la yittewoo nan la taxawee te fii li ñuy sant yàlla mooy nit ñi dañ tànn ba pare mais tànneef loolu aussi ñu ngi woo nit ñi pour ñu xam ne élection bii ñu jëm doonte ñaari yoon ngay voté na nga xam ne ñaari yoon yooyu dañ ko war yóbbaale mu doon benn ndax boo tabbee commune bàyyi ville du mën a am lëng ciy wut ci loo xam ne dina doon ay ngëneel yuy ñëw sotteeku si njaboot bi day mel ni daf koy xam kon képp koo xam ne dangay ngay voté liste Benno Bokk Yaakaar da nga ciy boolewaale liste ville de Dakar ndax ville de Dakar bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo ko jiite la mu am ci koom ak yéene bi nga xam ne moom Abdoulaye Diouf Sarr am na ko ci fekk budget wu bi toll ci milliards mu ne bëgg naa ko yóbbu téeméeri milliards mais loolu yëpp dafa nekk ay ngëneel yoo xam ne population yi dañ ko war a yéene seen bopp kon tey kuy tànn mooy tànn na si benn bopp yaakaar dafa koy def dafa ànd ak commune bi loolu nag aussi fii ñu ne fii ci camp xam nañ ko comprendre nañ ko li ma jot a gis dal na xel bu baax ndax population yi ànd nañ muy jigéen muy ndaw ñu xale yi sax ànd nañ te dañuy dugg ci kër yi ñu naan ñun duñu voté mais léegi seen voix ni ko papa yi jël wala yaay yi jël wala mag yi jël kon loolu sant yàlla mais ni ñu déploré mooy fitna bi nga xam ne nit ñaa koy bëgg dugal ci campagne te wax dëgg yàlla fitna moom ku ko dugal ci sa mbir xuloo saaga góor gaañ nit ko dugal ci campagne daa fekk da ngaa ñàkk mais jongante moo mel noonu boo mënee da ngay dem boo mënul it nga nangul ki mën mu dem ndax euh, comme nit ñi dañu war a tànn kenn ku nekk na wóolu boppam wóolu boroomam def la ma war a def mais des nag loolu du ay maanaam doole moo koy mujjënd wala góor nit ki wala gaañ ko wala tooñ ko réew mi nag dañ ko bokk te fukki fan ak ñeent la wax nga ko juróomi fan dem fukki fan a ci des kon fii ak fukki fan ñëpp yi day daal di te boo seetloo koñ boo génn muy sa koñ muy koñ bi ci topp wala bi ci toppaat da nga gis kenn koo xam ne dañ ko investir ci bi te ñooy bokk di yeewandoo ñun ñëpp a xamante boo gis da ngay jaar ci kon lu mel noonu ñun acteurs politiques yi xam ne ñooy laaj baax ñoo war a wane mandarga bu tax nit ñi wegg parce que bu ñu weggul suñu bopp kenn du ñu wegg te bu ñu weggul suñu bopp li ñuy wax nit ñi duñ ko mën a gëm bay ànd ak